dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyando yéenekaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal naan ñu musiba ma bokkumba mbaadu mooy yoot Sénégal jàngoroy coronavirus ji nga xam ne maanaam mooy lëmbaaje àdduna bi Sénégal ma ngi ciy jël wàllam ginnaaw ñaari cas yi nga xam ne amoon nañ ko démb Abdoulaye Diouf Sarr ministre bi ñu dénk wàllu wér-gi-yaram gi waxaan na ne senegal am na yeneen ñaari cas yu bees soo ko boole mu jox la deux cas plus deux cas maanaam égal quatre jamono ji Sénégal ma ngi ci quatre maanaam ñeenti nit ñoo xamante ni dal na leen journal bi mu ñu xamal naan ñu kañu seetoon nag fois bu dee te moo amee jàngoroy coronavirus ji kookee nag jabaram tamit bi ñu ko xoolee amee na jàngoro jooje ak keneen koo xam ne maanaam ma nga jógee ci réewum Angleterre kookee jigéen la ay atam toll ci fanweeri at ak juróom ñëpp jamono ji ñoo ngi leen di fàcc yéen a kaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu lu toll si ñeen fukk ak juróom ñaar ci ay contact direct yoo xamante ni identifié nañ ko maanaam ñi nga xamante ni ñoo amee jàngoroy coronavirus ji xool nañ ne ñooñu daal jege nañ lu toll si ñeen fukk ak juróom ñaar ci ay nit ñooñu nag ñoo ngi leen di càmbara xamal naa ñu médecin ya dañu leen a quarantaine yéen a kaay gii di la témoigner mu xëy di ñu xamal naa nag lu jëm ci wàllum xeex jàngoroy coronavirus ji maanaam Sénégal ni mu sooboo ci xeex bi baaxul ndax ak pëccaxoo moo sa am yëgoo daal amusa maanaam xàccanoo di dóorandoo amusa journal bi mu ñu xamal naa ñu nag la ca am dëgg mooy Macky Sall ci boppam mooy làq boppam maanaam di protesté wu ba pare jël askanu Sénégal génn leen ci biti AIBD maanaam aéroport international Blaise Diagne dugg ba génn ba ma nga mel ni tulleeg màlle maanaam ma ngi mel ni mësinu wàll ku dugg génn wàllu jox sa morom mu dugg wal Diallo journal bi nee na amul benn kaaraange boo xam ne maanaam am na fa gaayee fi nekk di sóob rek waaye dara amu ca maanaam ci kaaraange ci boobale aéroport journal mu ñu xamal naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall nag maanaam fowul kaful ci li nga xam ne mooy coronavirus bi ndax nag ca conseil des ministres ba ministre Moussa Baldé ak ministre Samba Ndiobène Kane ña xam ne ñoo demoon ca salon international de l'agriculture ñooñe dañu leen a quarantaine maanaam démb sax jaaruñu ca palais ba journal bi du l'observateur mu ñu xamal naan ñu Mbaye Ndiaye Marème Badiane ak Mahmoud Saleh ñooñee tamit démb dañu leen isolé maanaam dañu leen a ber yéen kaay gii di libération mu ñu xamal lan ñu en tout ambades mooy jàngoro ji xuus di jàll askanu Sénégal jamono ji ñu nekk ci njàq rek tiis fagaru moo gën fajo njiitu réew mi di président Macky Sall journal bii di réew mi quotidien nee na maanaam mbooleem loo xamante ni ay conseil des ministres décentralisé la te ñu jàppoon ko ci weeru mars Macky Sall dàq nag ba pare tamit nee na ministre yi maanaam réew mi bu ko génn wax na tamit ne ndaje yëpp nañu ko dakkal 8 mars bi jigéen ñi bëggoon a amal Macky Sall nee na leen teg leen ko ci finance mu ñu xamal laan ñu ba neexul waaye coronavirus bi nag baaxul waaye nag ci genn wet coronavirus bi am na solo ndax coronavirus bi moo tax Macky Sall bàyyi tukkeem yi métti yi moo tax tamit ñi nga xam ne ñoo nekk ci gouvernement bi maanaam ci état bi ñëpp Macky Sall wax leen bàyyi leen seen tukki te tukki yooyee nga xamante ni ñoom moom lañ doon amal maanaam xaalis bu weex tàll la doon doon te loola nag askan bi rek maanaam ñoo si doon sonn a Massalikul Jinaan lu toll si juróom fukk ak ñaar jàng nañ ko fa kaamil bi ngir nag muslu si jàngoro ji di coronavirus yéen kaay gii di réew mi ko di jàng mu ñu xamal lan ñu jàngoroy coronavirus ji nag jamono ji waroon nañoo fekk maanaam ñu daal di annulé nag maanaam xew-xewu diine yépp waaye nag gouvernement bi mënuñu ko ndax Sénégal la ñu ma Macky Sall mënu ko benn yoon waxuma laa nag aku ministre xanaa kay mu yëgoo sa ak ña nga xamante ni ñooy amal yooyu la bis te sax Macky Sall bu ko jekkoon jekk tere ko maanaam du jur njariñ ndax ña nga xam ne ñoo aju sa kër yooye dem ci nii wala dem ci naa li am ba des mooy jamono ji jotoon na sëkk maanaam ñu daal di xalaat 24 a mu ñu xamal naan bët yëpp nag teg nañ ko Touba ca màggalu Kazu Rajab gi nga xam ne maanaam ci weer wii la ñaar fukki fan ñaar ci weeru mars haute surveillance moo fa am l'observateur mu ñu xamal naan daaru muxti ak sàkkal ña nga xam ne njortoon nañ ne dañoo amee jàngoroy coronavirus ji ba ñu leen testé xool nañ ne ñooñee daal amuñu jàngoro ji journal bi di réew mi quotidien di faatu ñoom ñett ñëpp fi tolloo xombal yéen a kaay gii de la turbine mu ñu xamal laan ñu rapport OFNAC 2017 2018 dossier yu tàng yëpp maanaam jébbal lañ ko procureur Serigne Bassirou Gueye jamono ji nag maanaam dañu ko teg ci ay responsabilité ma moo yër cëgul guyam yéen a kaay gii de la témoin ak mu ñu xamal ñu Soosa Jóob jonn mi nga xamante ni rapport OFNAC 2017 2018 bi gis na ne def na ay na ko Soosa nag moo nekkoon L'Évidence mu ñu xamal lan ñu maanaam nag ndax yàlla Macky Sall commencé na rëq ndigg ñi nga xam ne ay jege ñaaleem lañu tey def ay scandale ki girawaal yi su a mu ñu xamal lan ñu Socé Diop jonn jamono ji jébbal lañ ko procureur ngir nag mu daal sey def ab liggéeyam yéen a kaay gi ko Les Échos mu ñu xamal lan ñu Macky Sall ba mu toogee ci bopp réewum Sénégal maanaam ñu fal ko 2012 ba léegi ni Macky Sall maanaam ma ngi doog di yëkkati ay daan di ko teg ci ndoddul koo xam ne ab rapport daal na koy épinglé maanaam koo xam ne tuumal nañ ko ne def na girawaal yi na njombe ab rapport daal di koy wane ci Socé Diop jonn la ko Macky njëkkee